wax rek sant dong lay doon baati sant ndax bis bii ni mel nii ak eh, ni mu ak jëf ju rafet di ci am yépp ay mbokk jullit ñoo xam ne dañoo bëgg lislaam bëgg daara yi ñoo ñu jàppale taxaw kon ñu ngi sant ñépp ne bis bii dañ koo tudde nit ñu baax mag ñu baax muy sëñ Maba Awa Ndiaye ak sëriñ Awal Fall Touba Fall di ay mag yoo xam ne ci magi sëriñ Touba la li tax ñu def ko mooy ñoom ñaar sëriñ Touba da leen boole woon ne leen da ngeen dem du dëkk te xam ne boole naa leen fii ci àdduna boole na àllaaxira ñu yu baax topp jàpp ci daara yi def ci lu bare bare bari te saare ko ba daara yi tey bii boo demee kër ma Maba Awa daara ju mag moo fa am boo demee itam Touba Fall daara ju mag ba am nañ indadiya muy taxawaay ba dafa yàgg nga fa dem dem nga fa gis ko looloo tax ñu tànn leen liggéey bëgg guñ bëgg daara ji moo tax ñu ngi sant inspecteurs yi yu fi teew boo demee étude beeg mboolem iyaa beeg ñëpp ñëpp ñëpp teew nañ di tuub di jégalu ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanamu suñu waajur yu tedd yi ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom lañu doxalee suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa duñ toogaat di laaj sëñ Mor mii it duñ tabaxee école bii nañ defoon di ko tabax yëg ko ci ñaanam rek ci baatin la ñu doon ñaanam ñu góorgóorlu ba am juróom-ñaari classe yi noonu lañu fas yéene di ko defee te sama kàddu bu bëkki démb mooy sama kàddu démb mooy nekk sama kàddu tey jii damaa bëgg institut mboolem institut Al Azhar yi nekk ci àdduna yëpp école bii nekk Kaolack gën cee rafet gën cee joŋ gën cee def lépp te loolu ñun taalibe Sëriñ Tuubaa rek ñoo koy def sëriñ boobu maa lay ñaanaat ak murit bu xeeb jëfam du naw jëfam loo jëf ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa fàtteel loolu la ci kanam da nga li ci des maam noo nekk suñu kanam nañ ci fexe góorgóorluwaat école bi bi ñu xaymaa li nga xam ne moo dem lépp toll na ci 140 millions cinquante millions yaakaar naa lañ ci defagum toll na ci vingt quatre millions yu teg tuuti kon des na lu bëree bëri fii mooy teg jotaay bi nag bu soobee Cheikhul Khadim jaayante naag Cheikh Mourtada téeméeri junni dinaa ko jox Moustapha Ndiaye bu soobee sëñ bi sëñ Mbacke tàmbalee ko liggéey bi kon nag maa ngi ci tàllal loxo ñëpp loolu nag sama kàddu bopp la sama jëfi bopp la. gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu euh, yaakaar Cheikh Ahmad am mbégte lool. ci dalal bisub alquran bisub diine fi ci cœur de ville de Kaolack ah nga xam ni Kaolack na de kolom la ndax ah alazar liñ woné fi gannaaw bi njëkkat tek ci Touba ndam bi ci tegu fi ci Kaolack la ma man ko sédé ndax lu upp ci suñu ah gi ba ci man fa lañ dale ba jangafa fa alxuraan mu nekk lo xam ni du fierté Sénégal rek fiyete àdduna bi yépp la ba yaakaar naa ah, réewu arab yi sax yi nga xam ne nii ñun ñoom lañ jàpp ne fa lañ jëlee fa lañ jëmee diine dañ koy roy sëñ Mamor lépp daf ko yokk ndax fa mu ko jëlee ah tey yaakaar naa ëpp na lu mat lu jege 100000 élèves yu ci jànge yoo xam ne te loolu xam ngeen ne 100000 ah, étudiants encadrement bi ci nekk ci biir kenn xamul na la toll te ñëpp dañoo nekk ñoo xam ne nii dañuy ci fayu kon industrie éducative la bu am doole fii ci ci Sénégal. di yónnee message nag ñun opérateur économique yëpp suñu rôle la ñu jàppale daara yi gën cee taxaw lu ci waay defoon nga gën ko yokk incha allah ndax wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin. ginnaaw bu ñu nuyoo euh, kilifa yi fii ñu toll état bi am noon nañ fukki filière ak ak ak benn xaw ma ñett mais fi mu ne dolliwaat nañ nu beneen mu ñaar fukki filière ak benn. nga xam ne fi mu ne faculté yu nekk bu ci nekk am na loo xam ne danañ ko gën a danañ ko wane ba nga xam ne xare yi ñëwaat déwén ku ci nekk dana am foo bëgg muy ndar muy Cees euh, sax keroog bi ma fi demee sëñ bu Bousso mi ngi fi woon mi ngi ma doon wax ne dañoo bëgg mais yàlla def na lijjanti naa fa terrain defe naa tey sax lañ koy war nat waaw kon yu mel noonu te Kaolack nag kon Kaolack defe naa ne moom itam kon fokk ñu wut foo xam ne tamit dañuy fi fexe fekki waaw bu ko mu nekk collectivité wala danañ xalaat ban collège ban faculté moo fi war a méngoo ak dëkku dëkku Kaolack xaaruñu ci it dara bu ko defee lu mel noonu mooy tax ñu gën a góor góorgóorlu xale yi tamit ñi ngi leen di gën a soññ ngeen gën a góor góorlu bu baax ngeen xam ne ñun day euh, fu ñu toll rek ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi def muhaawala li musaarak fi binaa mustaqbalikum loolu moom mosuñu dañ di ko def jéem a essayer xool naka la ñuy participer ci seen avenir participer seen avenir mooy fexe ba lépp loo xam ne dafa daan xajamal am njàng dafa daan xajamal suñu culture dafa daan xajamal sunu sunu gëm-gëm dafa daan xajamal sunu sunu xam-xam loolu ñu génne ko seppi ko te def naa am na ci bunt jërë ngeen jëf onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gouverneur bi mu jotee bataaxal bi ñu koy xamal ne dañuy defar journée culturelle jagleel ko Serigne Murtada Mbàkke def cee ànd ak mbégte lool lool lool ba tax na ci waajtaay bi képp koo xam ne service technique nga wala képp koo xam ne xalaat na ne war na mën a jàpp ci bés bi ba ñu am ci satisfaction gouverneur woo na la ci bés bi. ki nga xamante ne moom lañ jagleel bés bi muy sëñ Mouhamadou Mourtada Mbacké yaakaar naa ne néew nañu lool ngir wax ci moom waaye lu ñu ñàkk ñàkk xam-xam pour wax ci moom xam na am na lu ñu xam ci dimension muy koo xam ne acteur de développement la woon jàngalekat la woon waaye tamit ambassadeuru lislaam la ndax tey fu ne yóbbu na fa lislaam ci àdduna bi ku ne gis nga ko kon ku mel noonu bu waa këram di xewle yoon la administration ñëw taxaw fekkee ko lam ci mën mu ànd kook ñoom nee na ngeen ñaanal président de la république waaye tamit ñaanal Sénégal jàmm ji nga xam ne am nañ ko yàlla suñu borom ne di fi saxal jàmm jooju waaye itam dañ nekk ci dëkku mbay ñu jublu nawet bi ñuy profité ci occasion bi nag ndax euh, kilifa yu mel ni buñ toogee jaadu na ñu sàkku ñu ñaanal Sénégal ñu am nawetu jàmm ndox mu barkeel ba nga xam ne képp kuy baykat képp kuy sénégalais nga gis sa bopp ci nawet bi